Salut les amis de eSport TV et de Baba Show. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de way des likes, merci de vous des abonnés. Merci également aux gars de baisser les commentaires. Un hein. plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. Inbox sénégalais, fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. Rokhuruka de Gorgoha de Ninglen de Yadjofel. ni n'est également à l'hôpital de Tchikarité de Febar. Yal nos une bonne fois que c'est une bonne fois que N'y n'est qu'à ce qu'il aussi erreur judiciaire. À Guinel ni de Foumol le Foyo, une bonne fois que Guinel ni de Delawaren Sénégal, ni de Daduna. C'est une bonne fois que Nadjane Fido Sigaïta. Yé, nous en avançons dans la magie de Babo Show et des Sport TV l'actualité en compte actualité ñu fas le waxtaan avec euh, Ismaël Spilissa avec son nouveau numéro wax ci Pape Jong, nouveau patron de Strasbourg également trio Bou attaque Bou Real bi Ancelotti dévoilé mais aussi qui euh, dit Matisse de Lire du côté du euh, de Manchester United pendant ce temps wàllum Jeux olympiques Serbie Allemagne 93 à 83 gannaaw bi nga xam ne joué pour troisième place bi donc une médaille de bronze ci Jeux Olympiques bu basket en attendant final bi tey lay doon de dem du côté de Manchester United en tout cas accord amna na loolu gars accord bi nak 45 millions la ak 5 millions de bonus pour le défenseur hollandais bi nga xam nak mom insister insisté na def lépp plus pour daal di du côté du club bavarois mais du mom kese ki nga xam également mooy Mazraoui également day daal dem du côté de Manchester United mom 15 millions la ak aussi 5 millions de bonus euh, pour ñi nga xam ñoom ñaar yëpp Ajax Amsterdam qui nga xam nak euh, eric ten Hag mo fa nekkoon sen entraîneur fexe na bañ du côté donc de euh, Manchester United Wambi Saka n'a fi West Ham moy daal euh, presque waaj a boucler mbir mi ndax mom xam ngeen ne di wa Manchester ñu ko bëggono jaay pour Mazraoui daal mëna ñëw jël euh, place am moo tax ils sont en train de se renforcer le club mancunien ñom tay sax war jouer nañ ci si kanam pour l'instant Jean-Claude Todibo mom dem na du côté de West Ham le défenseur français donc de l'OGC Nice officiellement présenté gis ngeen par West Ham mu a reçu le numéro 25 Barça nak amna ci 20 euh, ba 25% cinq ci li nga moy revente bi Community Shield bi nak ah, tey la euh, final bi diggante Manchester City ak Manchester euh, United lay dadi Don ah, donc mu nekk match bo xam ñepp ñëpp koy xam ñepp a koy xaar plutôt mu nar a nak avant goût bu ndorteelu championnat bu Premier League Victor Osimhen nak fi ne gay japp gars ci Chelsea moom gannaaw bi nga xam ne ñom nak ñom dafa melni ñom ñoom ah, armé lañ bëgg tek teg Osimhen daal lañ bëgg jëndat fi ne Chelsea mom xawma ma nan lañ nar def ak yeen joueurs lañ nar ni mais moom bëri nañ macha allah Chelsea lañ jënd moom mo ngoog ki nak di ismaël Spirit Sarr ñii di wa Crystal Palace jox nañ ko numéro 7 bi il va porter donc le numéro 7 ismaël Sarr du côté donc de Crystal Palace officialisé gis ngeen ko ak ñaari may yi nga xamné mom moom la Crystal Palace naro sol saison mini on espère que numéro 7 bi dina ko jik fof mu daal di euh, jëm di Crystal Palace ki nak di Désiré Doué mom nak nee na fan yii di ñëw dina jël décision ndax day dem du côté de Bayern Munich wala day dem du côté du Paris Saint-Germain ndax ñaari club yooyu daal fi ñoo intéressé wu ci mom Désiré Doué bi nga xam nag moo jël 3e ah, ah, mayo ñoo jël 2e plutôt ci euh, Jeux olympiques bi ndax médaille d'argent bi la Espagne mo leen daal di gagné ci finale bi euh, Gabriel Moscardo nak mom fimné ni ne euh, du côté de Paris Saint-Germain dañ ko ménager ndax dañu gis né nek goul à 100 pour niveau physique gannaaw bu amé blessure daw ñëw rel nak du côté de Paris Saint-Germain mo tax dañ ko ménager ci sen match amical bi ñu nar jouer ki nak di Alexis Sanchez delu na du côté de l'Udinese gannaaw bi nga xamné fofu lañ ko ñu bari ragné won ay jamono il retourne là-bas presque 16 ans après l'attaquant Chilia librement donc la demee du côté donc de l'Udinese qui nag de Vitor Roque actuellement a waa Barça dañ qui euh, nga agent am na ko point de chute ah, pour finir comme ko a appelé nous ñooy donc euh, mais mon dal agent dafa bëgg mu que euh, jaay définitif ndax bëggul de foofu pour naan dañ koy abale dal daal la jamono Dani Olmo est la première séance d'entraînement avec le club donc Blaugrana l'international espagnol donc joueur de Leipzig ah, formé du côté du Barça sénat du côté de FC Barcelone n'est que l'un des hommes forts fas sol numéro 20 bi gis ko aujourd'hui c'était à l'entraînement qui nga xam ne nag donc également Alaba mom euh, mi ngi woy di euh, def li xam donc euh, préparation pour delu ci nak bu mu blessure ba tamit il ne pourra pas débuter en ce début de championnat David Alaba Pape Daoudo Niang actuellement le la pépite sénégalaise milieu de terrain dem du côté de Strasbourg nga euh, Chelsea presque mo moo am ay parti moom ndax Chelsea ñom ñom également Strasbourg moom dal mi ngi nek def lu du côté de Strasbourg ba gaay na jamono ji il devrait être titulaire en ce début de euh, championnat moom ak ke mooy donc Habib Diarra tellement il fait de très bonnes choses qui nga xam ne donc Pape Daoudo Niang la pépite sénégalaise donc la petite catégorie bi nga xam nak c'est un joueur bo xamné il pourra faire ses preuves en ce début de euh, championnat lol en tout cas koy les amis li moné nekkoon donc information ñun bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir né wax ngeen woy di like woy di abonné sur ñaari chaîne yi di donc Baba Show ak iSport TV li nak di TikTok bi di iSport TV Instagram bi iSport Inter ja ngeen jëf